il a, il a raison de le dire. il n'a pas il, il, il n'a pas du chef de quartier dara du chef de quartier bu Médina parce que li mu bëggoon mooy continuer di nekk chef de quartier bi parce que soo doo nekk chef de quartier nag ñu war a dem jongante ci quartier bi te kenn du la jiital yàlla def na ba ñu waree dem jongante ci quartier bi kenn jiitalu ko beneen naataangoom la ñu jiital ne ko yow la ñu wóote ci wóolu ci quartier bi nga jiital la kooku ba ñu ko jiitalee mu am 15 conseillers municipaux la liste proportionnelle ba maire bi maire bi gañe ëppale ko ñaari conseillers donc entre Seydou Gueye ak Cheikh Ba kan mooy chef de quartier bi coalition Benno Bokk Yaakaar. ñoom ñaar ñëpp kenn du chef de quartier Bamba Fall mooy maire <laughs> bu méttee ni campagne bii musuma ko campagne ba ma dalee politique ba tey. parce que aussi kilifa laa ci biir euh, coalition bi kilifa laa ci ñi jege woon Cheikh Ahmed Tidiane Ba mais ni ma sonnee parce que gisuñu moyen parce que ce qu'on refusait c'est que ñu taxaw ñu ne. xaalis la ñu campagne. mais te yàlla xam na ni. mais mais mais. Euh, yàlla xam na ni. mais Adama il faut mm. respecter les Sénégalais. je respecte très bien les Sénégalais. voilà parce que munoo toog fi jàkkaarloog internautes yi nga xam na ñu lay suivre un peu partout ne kii di euh, Cheikh Ba. Euh, déggoo leen wala dama ne milliards. dama yu bëri Medina. dama ne voilà no on était là les images sont là. dama wax dama ne ñi fa dekkoon ce sont des jeunes qui se sont levés. jóg comme un seul homme pour porter un homme à la tête de la municipalité parce que il avait un programme extraordinaire te loolu wax naa ko fii sa plateau wax naa la programme am fii ci sa biir plateau te looloo tax ndaw yi daw songoon ko mag ñi daw song ko yàlla def mu toll parce que ñun ay 4000 voix lañ daan am Bamba en 2014 il avait gagné à hauteur de 60 pour cent bii amul 40 pour cent il a gagné mais amul 40 pour cent des votes donc c'est important maintenant nag koo xamante ni daf ñu doon saaga démb njàpp koo xamante ni daf ñu doon saaga démb ki nga xam ni moo tax faatuwaat Wade ñu dagg ay kanamam Fatou Wade nitu Cheikh Ahmed Tidiane Bala ci Benno Bokk Yaakaar la bokk. ñu laseere kanamam ak lansat ki nga xam ni moo tax ay doomu Médina yu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu tas leen tëj leen ci kaso bi. ki nga xam ni moo tax ay doomu Médina yu kook ci coalition Benno Bokk Yaakaar am ay blessure ay damm-damm ay tàng loxo ak damm nangam ki nga xam ni moo taxaw duñu saaga nañu ñun tekkiwuñu dara suñu biir parti moom la Macky Sall jël woo ko ci wetam yëkkati ko jox ko poste ministre conseil. mais dafa mel ni comme waxam jooju kii di président Macky Sall da koo dëggal aussi. mooy ñun tekkiwuñu dara. waaw du dëgg. waaw puisque ñun tekkiwuñu dara ñun ba ñuy ànd ak moom dañu ànd ak moom ci fulla ci fayda te yaakaar na ni. su nekkee dafa bëgg gañewaat Medina yaakaar naa ni sooy war a sooy war a jox ndàmpaay da ngay jox ndàmpaay sa njaboot. mais njabootam bi bu incapable aussi il est obligé de se rabattre euh, voilà sur d'autres fils aussi. dama ne. on est en politique te Macky Sall il faut que mu euh, jóg si défaitam bu président Macky Sall na xam ni Bamba Fall àndul ak moom te gëmu ko. Hmm, Bamba Fall dafa bëgg fu mu toll nii Macky Sall de moo raw mbuur ak soow bi de. déggoo li il veut être député. a l'Assemblée nationale dama lay wax dama lay wax le schéma c'est quoi Bamba jubawul ak Barthélémy Dias àdduna du neex ba waaye yeew yi dugal ko seen liste parce que duñ ko wóolu Bamba Fall soxlawul yeew yi pour être député il est parti avec pour être député pour être député pour être député su àndee gëm sa bopp du nekk député pour être député yeew yi la war a àndal wala Benno Bokk Yaakaar mais xam na nañu su demee yeewi du du fa du du du du nekk député du bokk sax ci liste parce que jubawul ak Barthélemy Dias du ànd ak Khalifa lu muy def day carte mu daw songu Benno Bokk Yaakaar. moom dawul sonn benn Benno Bokk Yaakaar président de la république moo ko woo. si ay oh, kàddoom dama ne mu daw songu Benno Bokk Yaakaar. moom moom laalu leen de président moo ko woo félicité ko. man damay wax. voilà xam nga waxu Bamba Fall ak sama kàddu. mu daw songu Benno Bokk Yaakaar parce que il veut être député. pour avoir une garantie élective pendant cinq ans à l'Assemblée nationale mooy maanaam dina am cinq ans magistère am cinq ans à l'Assemblée nationale parce que mu ngi naan ci boppam Macky Sall day pare 2024 su paree 2024 damay nekk député damay nekk maire dina am moyen yu mu demee élection législative en 2027 élection locale en 2027 parce que li muy préparé c'est la renégociation ci pouvoir bi war a nekk en place après 2024 malheureusement malheureusement nos experts politiques qui sont au niveau de la présidence n'ont rien vu euh, non attends Euh, vos experts euh, politiques est-ce que ñoom nekku ne carrément dañuy wax ak avec les gagnants parce que tamit nañu wax de dëgg. waaw euh, mais kay président de la république da leen jox ay moyens. waaw les les gagnants les gagnants c'était pas Moussa c'était pas Idriss Seck à Thiès. <laughs> les gagnants c'était pas Moussa Sy pas Banda c'est pas ça les gagnants du ñoo ñoo nekkoon les gagnants non hmm. lu ñu def parcelle dañ ñoo wulli ba ñu laal suuf c'était pas lui le gaña lu ñu def commune de Thiès ñetti commune Thiès ak ville bi c'était pas Idrissa Seck le gagnant wulliw ñu ba ñu toog lu ñu def euh, band Diop wulliw ñu ñu ba ñu toog Padois hmm. ñooñu ñoo ñooñoo ñooñu lay ñooy gagnant ñoo ñoo gagné woon hmm. le leçon la xam nga ni les gagnants su ñu nekkoon ñoo yor base bi kon dañuy gagné tey maintenant yow waa ji gagné na rek toogoo xaar quelque saa rek nga ñëw ne da nga koy jëli andi ko teg ko wet ba pare war koo dugal suñu liste di ko nommé ministre conseiller mooy manaam euh, jàpp dafa mel nii. ñun tekkiwu ñu dara ci kanam ah, président Macky ah, Sall. ah mais dafa mel ni aussi tamit tekkiwu leen dara de. non xam lu tax ma ne la ñun tekkiwu dara. mel ni yow parce que. terme boobu président non da koy bañ a dégg. président convaincre ko ay ay man waaw waaw très bien. man euh, membre fondateur du man day bañ a dégg membre fondateur gëmatul loolu. Hmm. mooy un militant engagé ku ko mën a andi dara. mais li may toog ci plateau yi di ko défendre amul kenn ku nekk benn mbokk yaakaar bu ko def boobooy benn boobooy benn non bàyyi ma ñëw bàyyi bàyyi benn bàyyi loolu mooy benn yow xam nga ndax am naa base am naa yow loolu mooy benn ça c'est là sur le plan de la communication mm-hmm. sur le plan de la mobilisation politique may milité Médina nekk fa responsable créer parti bi nag depuis mm. mooy benn ça c'est au niveau communal au niveau national ma yor mouvement boo xamante ne amul département booy dugg Sénégal newu fa te ñu nekk ay jàngalekat nekk au nombre de huit mille te suba suba suñu leen soxlaa mandi leen. yow moom Macky Sall dafa mel ni sa kanam moo ko neexul parce que wàllum jàngalekat gi sax ñëppoon loon xaar euh, pour nga remplacer ki nga xam ne mooy <laughs> mooy sama grand yi. xam nga nag xam nga nag yàlla dafa def xam nga yàlla dafa def. <laughs> dama nekk dama nekk ci parti boo xamante ni. aw ma ci beneen kilifa. wala amoo ay bàjjen. aw ma fa bàjj non foofu laa doon ñëw ñëw. foofu laa doon ñëw. xanaa Mamou Salé bokkoo si. non man déggoo li ma wax man duma ma mar taatu kenn. Ah. man duma jarbaatu kenn du ma booyu kenn man Macky Sall laa gëm. point te maleureusement dans ce parti soo gëmee Macky Sall doo am dara. Hmm. il faut nga nekk un larbin di martaatu nit wala nekk booyu nit wala nekk leneen pour mën a am dara. ah man da nga dem si Mamou Salé. non ah, sama sama sama sama sama sama xarit la sama waay la mais du ma booyam. suñu bëggee ma nekk seen booy dañuy perte seen temps man benn nit laa am comme leader sur le plan politique te Macky Sall lu tudd. mais ce leader bi dafa mel dafa allergique à des personnes comme vous aussi. Euh, moo tax nag ma ko moo tax nag ma koy wax li ma koy wax. ne ko <laughs> président wallahi jam nga ma te musoo maa jam musoo maa def lu ma metti def nga ma bii paa lu ma metti parce que dem nga jëli sama noon principal. muy muy Bamba Fall nga jox ko ndombo tànk. Bamba moom fu mu toll nii moom musuma toog mooy chouchou président non dama ne est-ce que mus nga ma gis ma toog ci plateau di attaquer président. déedéet je l'ai tout le temps défendu. c'est parce que ça du de trop. nous sommes dans un parti liggéey parti bi xeex ci pendant des années daj ci lu ne nag. ànd ak fekk ay nit di def tournée au niveau nationale def ci ay accident Ousmane Dione ngi taxaw Fatma Roné ngi taxaw Habib mi ngi taxaw. ñu def ci accident boo xamante ni mënoon nañ ci ñàkk suñu bakkan loolu Macky Sall moo ñu ko jaral di wër Sénégal di yéeg ay Jakarta di def lu ne di daanu ci ay moto lu ne mu ñuy dal mais attends am ba pare di wër jour bi ñuy nommé xam lu metti njàpp tu sais pourquoi j'ai mal jour bi ñuy jox décret bi Bamba Fall Bamba Fall mm-hmm. j'ai fait deux deux plateaux le même jour dama jóge ci télé bi à vingt heures dem ci télé bi pour vingt deux à vingt deux heures trente pare ci tele bi def émission boobu ba une heure du matin je vois Bamba Fall dans une vidéo wax ni Macky Sall jox na ko décret xoolal li gën a graaw mooy ba muy gis vidéo bi tuuti ma daanu sañ ko parce que j'ai eu mal j'ai eu mal parce que ki nga xam ni moom laa gëm te jàpp ni mooy sama kilifa moo ma poignardé au mais du tere mais mais du tax mais ku xam Macky Sall xam na day politique waaw déglu Macky Bamba Fall politique mooy politique dafa ànd ak éthique ak valeur mais Bamba Fall comparé Bamba Fall ak Adama Fall aussi dafa mel ni pomme de terre en terre man ba ma nangoo du tey ku bajoon démb nangu tey sa pexe yow